abonné leen ci seen chaîne YouTube mbokk internet Leral Plus TV man soxna Mati maa leen di di leen ziar di leen yéegal conférence bu mag bu bëgg amal ci daara El Hadj Cheikh Niang le 4 août à Scat ñu ngi sàkk seen teewaay yi ñëpp di leen fàttali aussi pour yéen ñi gul ci suñu chaîne YouTube Leral Plus TV ngeen jéema a abonné asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki yi man Abdoul Aziz Ndiang Thiel may ànd ak leeral pilis di leen yëgal suñu conférence bi ñuy def ñun waa daaray alxaaji Cheikh Ndiang ñi daan ko def at mu jot ren ñi ko jàpp le 4 août incha allahu rabbi le 4 août 2019 euh, ca Scat Urbam ginnaaw hôpitalu américain yi ñu ngi fay xaar teewaayu bépp mbokku na yàlla may ñu fekke ak tal ñi def ko ci alhamdulillah salaamaaleykum na la Soxna Xadijatu Sekk maa ànd ak waa Bilis day njëgal conférence daara El Hadj Sène war am la kat ubbi allah Sky Urbam hôpital américain sàkku seen bopp tamit bu leen fàtte abonné seen YouTube bi Leeral Bilis salaamaaleykum wa rahmatullah abonné leen ci seen chaîne YouTube Leeral Plus TV